defar ab courant renouvelable yi nag nekkul rek moyen ngir wàññi gaz à effet de serre yi waaye nag ab calcul économique la loolee tax nag ñu seetlu ni courant bi nag wàññeekoon bu baax fii ci senegal ci diggante 2010 ak 2021 pour le fii ci Sénégal nag daanaka programme bi wane na ko ndaxte lu toll ci benn kilowatt heure boo koy calculer mu ngi lay dikkee juróomi dërëm tëkkale ko ak euh, ci 2005 nag bañ ko daan calculer kilowatt heure bi mu ngi doon toll ci 55 ba 95 francs buñ sukkandiku ci Sénélec. et 95 programme bi nag jàppale lu jëm ci développement planification énergétique nag ñu jàppale ngir rek ñu mën a jot objectif yi jëm ci wàllum développement socio-économique bi nga xamante ni ni dafa basé wu rek ci secteuru énergie. donc énergie boobu euh, ñu ngi koy utiliser tamit si nu ñuy woowee euh, zone euh, zone yu zone zone yu éloigné yi zone yu gën a sore yi nga xam te suñu mbokk yi fa la ñu nekk dinañu mën a defal ay panneaux solaires pour nu mën a am électricité. mais tamit énergie renouvelable bi gis nañu lu ñuy wooyee toolu courant yi gis nañu tamit ngelaw bu siy jóge gis nañu tamit si barrage hydroélectrique euh, lu ñu si jëlee comme comme courant. ngir rek egg si Sénégal fépp am courant ak tamit ñu njëgu courant bi ñoom ñee nag daal di nañu engagé wu ngir rek tegal programme bu ñu duppee gaz to power topp itamit développement énergie renouvelable te nag di respecter climat bi.